jàngkat yi euh, nga may ma rek ma jébbal aussi ay kàddu njaal suma benn xarit koo xam suma ami d'enfance la ñoo jàngandoo rakkam hmm. ci gaal bi explosé Cap Vert ci la décédé hmm. ñu doon dem si si géej gi donc ma koy Modou Fall Gueye mu ngi dëkk Sandiara hmm. di ñaan sunu borom mu yërëm ko te di masawu famille bu baax a baax man mii la doon impliqué sax dans un premier temps parce que boobu xamagul woon qu'est-ce qu'il en était mu nekk aussi désastre boo xam dafay bàyyi ci ginnaaw tout un social donc euh, par rapport ak li nga xamante ni moom mooy dal ci secteur de la pêche encore une fois pour man beneen problème la boo xam dafa ñëw dolleeku ci problème yi te euh, may nuy bu baax euh, sunu aîné Talibouya mais dafa mel ni dafay dénoter aussi ci benn pilotage à vue laa koy mën tuddee wala soit une instabilité boo xamante ni nekk na ci secteur bi. Mhm. ba nga xamante ni prise en charge bi ci war dëgg. ci question ambition ci question vision par rapport ak le secteur de la pêche dans sa globalité mm. yëpp pour man dafa des bu baax a baax parce que déjà boo xoolee dissonance bi am rek entre moom li mu wax ak li kii di wax alors que kii acteur direct la moom aussi mu nekk ñoo xamante ni ñoom ñii te moom mënuñu comprendre te mënuñu déggoo ci li nga xamante ni ñoo ñoo ngi koy wax dafay euh, témoigner à suffisance ci souvent euh, problème bi nga xamante ni dina am entre les acteurs d'un même secteur surtout par rapport à l'autorité mm. li ma gën a jaaxal dans cette affaire la mooy toog nañ ay heures yu bari. daanaka réseaux sociaux yi ñoom ñoo ñu wax li xew. Mhm. donc l' état du Sénégal les autorités n'ont pas alerté sur la question loolu pour man c' est un fait. Mhm. dans un premier temps donc n'a pas alerté gisuñu conférence de presse boo xamante ni am na. te yàlla xam na ne aujourd'hui mën nañoo wax ne du wàlle mën nañoo wax ne fii la jóge mais au départ kenn xamul lan. lan la waay waaw. ñaanuñu ko yàlla mais ba muy commencé huwaan tamit noonu rek la woon mm-hmm. dafa commencé woon ci kii ñu koy kii am na suñoo xam sa jàppoon nañ ne dañ ciy mucc mm-hmm. donc tey gis nga Charles ngay wax ne gis nañ ko ba département de Thiès fu gën a sori est-ce que day wàlle est-ce que du wàlle ban type de kii la ak yooyu yëpp fi mu ne ni ñun dañuy njort rek di joxe ay hypothèses mm-hmm. mais ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk loolu ñoom ñoo waroon taxaw wax ak sénégalais c'est pas une question de Thiaroye sur Mer c'est pas une question de pêcheur c'est le Sénégal qui est donc du du feebar bu dal nappkat yi feebar bi réew mi yëpp la dal te gis nga loolu dafa bokk ci feebar bi dal réew mi aussi mooy tant secteur benn secteur am na lu ko métti ñëpp dañuy croisé les bras secteur bi lay métti tanque am na dëkk boo xamante ni am na problème dañ naan non waa dëkk boobu ñoo am problème mais nit ñi du ñu sentir ne seen yëf la ñun ñëpp ñoo ko bokk tey jii ñun ñëpp Thiaroye sur Mer la ñu dëkk tey jii ñun ñëpp ak famille yi nga xamante ni ñoo ñàkk seen doom ci géej gi ñun ci famille yooyu la ñu bokk du ñoo xamante dañoo nekk dans des situation dans des positions différentes te je pense que ne loolu moo ñu dal ci lii nga xamante ni tuddee nañ ko une maladie mystérieuse te dafa dañu waroon am dans cette affaire là une communication graduelle depuis le départ hmm. ñu ñuy wax fan la toll gars yi ñu gis borom blouse yi di dugg ak a génn ñu taxaw di communiquer ak ñun parce que boo communiquer wul rek tu sèmes la panique et la panique aujourd'hui elle est là parce que les images qu'on a vues wax dëgg fa ay images la yoo xamante ni raglu na hmm. mais ñamu dal amee nañ njàqare mu métti mhm. bu fekkee ne dañ na sax ñi dem ci géej gi la ma ne am na beneen problème parce que man gis naa ñoom ay xale yu ndaw lañ ay mineur bu fekkee ne ñooñu aussi dañuy dem géej mhm. mooy problème am na te dafay reposer problème aussi ci sunu pêche artisanale bi nga xamante ni ñoo ngi koy entretenir te ma jàpp ne bu fekkoon ne am nañ ambition te dinañ ci dellu si ci accords yi bu mhm. fekkee ne am nañ ambition jëlee sunu pêche ci moyen âge bi mu nekkoon jëmale ko ci modernité dëgg war nañu questionner yenn méthode de pêche yi nga xamante ni tey moo tax ñu perdre près de cinq cent personnes ci brèche bu Doune Baba Dièye ci mm. Mm, Saint-Louis justement c'est parce que cette pêche cette pêche là dañ ko bàyyi ci na seen maam yi doon nappe donc yooyu yëpp pour man c'est un ensemble de problèmes qui fekk que dans cette affaire là l'état du Sénégal waru woon bàyyi ñu naan une maladie mystérieuse mm-hmm. les autorités tey euh, sama grand frère wax na ne ministre de l'environnement ministre de la santé dem nañu fa ñoom kenn xaarul ñu dem fa réalité ñoom li ñuy xaar mooy c'est parce que dem bi lan lay def en fait quel est l'impact boo déplacé woo c'est-à-dire que lool li ñuy xaar ñoom mooy un comité scientifique se met en place te dafay poser waat beneen. c'est mais on a trop attendu. beneen c'est mais. <laughs> tu m'excuses hein. <laughs> <laughs> ba pare leneen li nga xamante ni moom moo ci gën a métti en réalité mooy euh, disposition yi nga xamante ni waroon nañ ko jël au départ et qui n'ont pas été prises. dinañ yegg si ci moom parce que